ñu dem ci li nga xam ne mooy boutique la solution ak ak euh, fi mu nekk en face fajiri 8h ba 16h am nañu ndoxum siti ñoo man si tawat yi réew di réewum Sénégal ak bitim réew bitim réew nag moom numéro yaa ngi noonu nii di daw xoolal ba réew bi nga nekk bu fekkee numéro ba aw na foofu rek xamal ne réew boobu am na ko fa mais bu fi numéro bi nekkul xamal ne amuñu ko ci réew moom mii waaye fii si Sénégal nag en face Walfadjri donc lañ ko am amuñu ko feneen. bala ngaa ñëw boo mënee woote ba jot bañ wax la nga daal di ñëw euh, waaye euh, balaa sénkére daal dañuy wàcc te euh, samedi ak dimanche duñ fi nekk mm-hmm. ndoxum siti mu lay fajit ba nga wér ci kàttanu yàlla am na fi yow sa boutique bi da daan liggéey samedi sax lu tax ma jékki-jékki rek bàyyi samedi doxalal doxalal <laughs> laajal laajal laajal laajal laajal laajal yaa ngi fàlliku temps yi ndax kii asada daal jiite liggéey boo xam naa dañuy font rek nañ liggéey mais léegi mm-hmm. saa yi bëggul kuy tudd kuy tudd samedi léegi caaxaan yi moo ko jiite waaw <laughs> nee na ma sapoteel sa boutique bi lu tax liggéeyul day teel a wëndeelu. ah Assane. Ah, doxal doxal doxal sa boutique bi lu tax liggéeyul. ah doxal bañ dëpp. dama bëgg ah. sa boutique bi lu tax liggéeyatul samedi. Hmm? sa boutique bi lu tax liggéeyatul samedi. ah ñoom mu doo ngi nii yaa ngi nii bëgg a liggéey loo samedi ñuy siis te xam nañ. non siisu ñu ca non siisu ñu ca waaw day am danañ liggéey ah, dañ ak maa jigéen force dañuy liggéey ak kan samedi ak maa jigéen. samedi ak maa jigéen. <laughs> boutique la solution fi la nekk am nañu hémorroïde bu lay faj ba nga wér si carte nu suñu borom moo xam si biir la nekk moo xam si bitti la nekk rek ñëwal yow. Mhm. am na ko ni Assane xanaa tayiru ngay jox ndakaaru am nañu estomac. Mm, ndakaaru day mi ngi nii sama loxo joxagu kenn estomac bu lay faj ba nga wér si carte nu yàlla. as bàyyi mbay doon na ko laaj ma it bu lay faj ba nga wér si carte suñu borom boo toppee traitement bi. ballottement. ballottement ñëw leen ngeen jël si ko ngeen dindi seen ballottement bi am si seen biir. tànk yi xar. daw leen. mag wala xale buy saw. si loo yëg nga dem saw ñëw tëdd. raay mu sedd. guyu bul bàyyi fenn candidat yi nañ dem ñëw jënd si. ci raay. waaw sonn nañ de surtout son Sonko. lu mu koy de ah seen yaram ngay tas de. Hmm. yi nekk Dakar gi di lambar lambar ñi topp cortège yi daw kay non ñi topp cortège yi daw ñoo gën a sonn. waaw ñooñu il faut ñu limousine ak garde yi. non ñooñu jëruñu raay mu sedd ñoom moom moom jëruñu ko. jëruñu tàmm nañ ko. waaw ñooñu moom jëruñu. bam bi demoon na kees de. ah waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm war na koo jël si. Hmm? war na koo jël si. waaw raay bu sedd. waaw d' accord. solution plus am na solo de. jël si leen ko yéen ñuy gis mbaax muy metti góor gu néew kattan. bàcc mu leer nañ boo bàccee nag leeru demal nga faju ji te bu ñu fontoo. Hmm. waaw képp ku bàcc leeru demal nga faju ji lii moom si carte nag sunu borom ku képp ku ko jël boo bàccee day leer. Hmm. waaw képp ku ko jël képp ku ko jël boo bàccee day leer bu fekkee ni man nga mais nag soo mënut jur ngay ñëw soo ñëw mënut. jël ko ñàngal bu bàccee du leer bu leerul na nga naan ndàngam yaa ko yóbbee sa da ngay man ba pare hmm. boo ah, ñëwee da gën a man boo mënee oto oto da ngay def première boo mënee première moom boo ñëwee oto bi dina daw ba sept vitesse yi wala cinq vitesse yi dugg d'accord léegi su ma nee waaye nag bu fekkee ni piemor nga taxaw naan damaa bëgg a dugal première boo ñëwee du dugg hmm, hmm, piemor moom ku ko taxaw jurul ngay ñëw maanaam daal ku mënul dara wur koo jël ku mënul jël ñëw d'accord ku mënu dara da ngay faju ji waaw ah, da ngay faju ji d'accord kon mi ngi noonu Assane leeral na leen ko ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu ngi fi en face Walfadjri 77 la 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 nga jokkoo ak euh, boutique la solution ñu ngi en face Walfadjri ñoo ngi fi 8 heures ba 16 heures 30 Cheikh Ña nee na Soaybu on réclame Abdou Karim Gaye xurum xaq dans ci ngeen bokk loolu bàyyi naa la Abdou Karim Gueye yi euh, ñu ngi réclamé ci ci ngeen bokk incha allahu rabbi muy émission boo xam ni tabaarkalla la kon bokk comme wax ngeen ko rek Assane dana ko euh, jéem a lijjanti.